yegg taxaw di xaar Marley moom pare na bu yàgg mu ngi xaar Marley boo gisee taxawaay bi nga xam ne yor na su mbër yor na taay bi retard bi mu retard ci làmb moo jaaxal ñu bari ci làmb ndeysaan mais gis nga ko dafa nekk ci làmb bu dul dara absence yi gëj a bëre bi. xoolal ma coach Ndoukouré bi nee na ko defal mouvement Ndoukouré na ko garaawul garaawul maa ngi nii taxaw amul benn problème. daa yàgg a nekk ci làmb. ndaanaan la. absence bi mu absenté ci làmb wàññiwu ko dara teewul mu ngi ñëw bokkaat ci làmb bés bu abib bi sifflé nga xamante ni musu absenté bu abib bi sifflé nga xam ne na ko musu absenté ci làmb jàpp nga ne loolu la daa bañ xeex xeex dégg li ma li xale di wax naan par force la xeex bi par force la bu ca amee nag la cay xew moo ma jaaxal waaw bu ñu xeexee la cay xew moom a jaaxal seen tànk yi ni ma ko ragale ñépp moom la ñuy xel la ñuy bàyyi xel wóorul benn yoon. dafa mel ni dañuy pil fa ci nekk fi nga war a taxaw. maar la gañe na maar la gañe na wala boo gañee na abit baa ngi leen woo ci digg géew bi di wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ. waaye Baye Djily la ma la wax ci combat bi rek laa la ciy waxaat nee naa la marle buy jóg na xam li ko yëkkati lan la mag lu ko yëg. benn avertissement aussi. mag lu ko yëkkati ne war na koo xam ndax na ko réel ndaanaan la na ko réel booy xool moo xaw a ëpp tuuti relance kon Marley combat combat rapproché moo ko moo ko moo ko arrangé moom Marley. ayca arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 10 il est vingt heures quatre minutes Marley na ko réel na ko réel avancé na dox ci koom door na Marley jëli na ko lu ñu nar moytu tànk bi na ko réel Marley takk na ko na ko réel Marley jàppante nañ Marley caxabal na ko lu mu nar na ko réel bañ na Ousseyn ñoom ñaar jàppante nañ na ko réel Marley caxabalaat na déet na ko réel bañ na da koy pataxal fooram la da lay door tànk moytul Marley ma ngi koy forcé oh Marley forcer. force bi nga koy forcer duñ ci génnam déet. doole bàyyi Ousseyn mu ngi koy forcer. bàyyi ji li doole feeñ. Ousseyn mu ngi koy biij. bàyyi ji li doole feeñ. Marlon ma ngay bëre. bàyyi ji li doole feeñ. Marlon am na doole. doole feeñ na bàyyi. Maguette la fuñ ko jàpp sori na. comme mais est-ce que dina ci génn. combat bi attan na boppam bàyyi ji li damay bañ a wax waaye combat bi attan na boppam. ndeysaan Marlon fi mu ko yegg sori na. mais Marlon lem joxe dafa bari. est-ce que violence bu Néckorel bi day gée ci combat bi Ousseyn. bàyyi ji li newoon naa la bi Marley bi bi Néckorel a bëre. Oh. ñu fàtte ko. ndeysaan bii daan na ko. Marley ma ngay forcer. Néckorel daa baaxul. force bi baaxul. Néckorel. Néckorel Marley yegg sori na. waaye boo xoolee ko bàyyi relance bi. buñ dàqali ko moom problème. tegal na ko. war na ko wala déet. maa la daan daan na ko maa la daan na daan la daan na ko réel awaay oh! oh! ah, géejawaay yëngu na waay waay xale la géejawaay yaa ngi nii ee eh, géejawaay def nañ quatre sorties quatre victoire ee eh, tey géejawaay jël na ndam li oh! waay géejawaay jël